moom ci numéro yii 78 922 00 00 foo mën di nekk ci biir réew mi ak ki bitim réew ñu wan la nan la ak naka la kon nak ñàkk koo jëfandikoo daal wóoru Royal King yi mooy buuru garab yi. acca jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen doon topp di fi boobu ba léegi il est 14h30 d'après bi ñu woowee sànq ci suba wax ñu xibaar bi nga xamante ni moom moo am fii ci suufu pont. Sénégal 92 bi ñi nga xamante ni nag ñooy ñoom sapeurs yi commencé ñu a sauver ki nga xamante ni moo nekk ci ndox ñoom ñoo taxaw na le waaye ba léegi nag corps bi mi ngi noonu tëdd ci biir ndox bi gis nga ko comme niñ leen ko defalee woon sànq rek noonu lañ leen koy toppalee ba incha allah ñu fiy jóge sapeur yi gis nga yokk nañ sax renfort gendarme yi aussi tamit yokk nañu renfort policiers yi aussi pareil waaw lépp rek pour mën a def seen liggéey ci ni mu waree gis ngeen ko ni gis ngeen gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni gis ngeen ko noonu ba tey ñu leen di toppal liggéey bi nga xamante ni ñoom ñii di sapeur yeeg gendarme yeeg policier yi war nañu ko amal ndax tamit lii comme ni ñu ko waxee woon sànq rek lii plus jamais ça plus jamais ndax lii rafetul waaw lii rafetul d'accord nit dafay génn àdduna xamuñu nag ba xam lii jëf la joo xamante ne ay nit ñoo ko def xamuñu nag exactement ba xam tamit ko xamante ne xelamatul woon xamuñu tamit exactement ba xam kii mooy kan waaye ak lu ci mën ci am rek incha allah loolu dinañ ko topp waaw dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité yi ku ci mel ne commandant yeeg ñi nga xamante ni war nañ ci mën a am part de responsabilité pour mën a faire face ak euh, xibaar yi ñu jox ñu ci ay information ndax sànq gis ngeen police scientifique yegg si na ah sapeur yi ñoom ñu ngi noonu ba tey gis nga ñu ngi noonu ba tey liñ doon xaar mën nañ ni lépp yemb na ndax sànq ñu fi yegsee am na ci ñoo xamante ni sax solo wu ñu woon comme genre tenue yi nga xamante ni gars yi sol nañ ko waaw ba moo waraloon amoon nañu dem jëli yi nga xamante ni ñoom dañu koy soxla ñëw nañu nag gis ngeen gis ko ñu ngi noonu ñu ngi noonu mais fi ñu xaw a taxaw nii euh, policiers yi ñoo ñu ñoo ñu ñoo ñu arrière waaw d' accord nañ d' accord nañ waaye comme comme permettre nañ ñu rek pour ñu gën a mën a amal ñu ne suñu liggéey dañ leen di jaajëfalaat bu baax ci compréhension boobu nga xamante ne am nañ ko ndax ñun ñoom ñoo bokk terrain bi. tey lii bu amul woon ñoom tey duñ fi wàcc si lii bu amul woon it ñun ñi nga xam ñooy taskatu xibaar yi aussi tamit duñ ñu fi fekk waaye gis ngeen leen ñoom ñu ngi nii ñoom sapeur yi di waaj a dugg fi euh, ndox mi ndax fii nga xamante ne moom lañ nekk ban la ban la waaw ndax sànq am na ñoo xam dugg nañu waaye dañoo génnaat ndax il se peut tamit dudul wóor euh, ba moo waral ñoom it dem nañu jël seen matuwaay yi nga xamante ni moom la ñuy soxla pour dugg ci ban bi waa jaa ngi noonu tëdd waa jaa ngi noonu tëdd gis ngeen ko mu nekk ay image yu ñaaw yoo xamante ni mënuñu ko bañ jël waaye nag euh, comme on dit rek information moom dafay wér te dafay leer waaw moom moo waral dee fois ñuy braqué ci corps bi moom moo tëdd noonu ci biir ndox bi ah gis ngeen ko noonu ah. Euh, autorité administrative yi aussi tamit ñu ngi fii ku ci mel ne maire Padoa bi ah ñi nga xamante ni ñoom ñooy concernant it ngànk collectivité locale bi yëpp ñoom it ñu ngi fii euh, assisté ñi nga xamante ni ñoom ñooy policiers yeeg gendarme yi ba ci sapeur yi gis ngeen ko sapeur yaa ngi noonu sapeur yaa ngi noonu ñoom ñu ngi wàcc pour pas ñu ñu ñu avancer pourquoi pas pourquoi pas pour mën a wan internet yi ñi nga xamante ni noonu la euh, noonu la noonu la noonu la noonu la euh, sapeurs yi war a defee seen liggéey mais mais mais mais ñu nit ñu nit waaw ñi nga xamante ni bokkuñu si rek ngir yàlla nañ ñu rek waaw sinon rek ñun ñëpp dañuy yàqal suñu liggéey te ñoom it waaw boobaa du ñu mën a def li nga xamante ne moom mooy seen seetaan bi ñuy seetaan gis ngeen sapeurs yaa ngi noonu sapeurs yaa ngi noonu sapeur yaa ngi dox nank di dugg gis ngeen ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen takkal corde bi ñu takk jiitu ñeneen ñaar yi nekk ci ginnaawam ndeysaan ndeysaan ndeysaan gis ngeen ko gis ngeen xool bu ngeen xoolee ñoom ni ñuy doxee sax xam ni xam ni xam ni xam ni ban bi dafa dafa diis gis ngeen ko noonu sapeur yaa ngi noonu di dox sapeur yaa ngi noonu di dox sapeur yaa ngi noonu di dox sapeur yaa ngi noonu di dox ndeysaan léegi ñu yegg ci koor bi ban bi nag mooy xaw a diis ban bi mooy xaw a diis ban bi mooy xaw a diis gis ngeen ko yegg nañ teg nañ placard bi teg nañ placard bi teg nañ placard bi oh ndeysaan ngeen ñaanal ko bu baax yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te xare ko aljana bu fekkee it dafa am ñoo xamante ñoom ñoo jëf jëf jii yàlla na yàlla teg leen loxo feeñal leen ci anam gu gaaw gis ngeen lii gis ngeen ko ñu ngi koy yéegal noonu ci placard bi ndeysaan yéegal nañ ko yégal nañ ko yëgal nañ ko yëgal nañ ko ndeysaan doo doo da ngay dem ba dootoo xam sax nan nga koy mën a euh, commentaire waaye nag euh, on n'y peut rien waaw c'est le risque du métier waaw dañuy sacrifier wu rek ak li mu jar yëpp ñu jaayante ko gis ngeen ko teg nañ ko ci placard bi ñu ngi koy puus ñu ngi koy puus ñu ngi koy puus ñu ngi koy pousse ndeysaan gis nga kenn ki jox na feu kenn ki pour mu xëcc li nga xamante ni moom mooy corde bi ndax tamit corde bi tey moom mooy xëcc euh, moom mooy xëcc moom mooy xëcc placard bi il se peut ok ah. ok gis ngeen ko ok waaw waaw waaw waaw cëy oh gis ngeen ko est-ce que nekkul dañuy xool mettre à jour distance bi nga xamante ni foofu la nekk mais mi ngi lemaat mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi lemaat euh, euh, mètre bi mi ngi lemaat mètre bi mi ngi lemaat mètre bi ngi koy lemaat may leen ko garaaw may leen ko oto police bi mooy arrière ñoo ko tey. c'est pas grave. allo. bay laaj. bu leen mayee ngeen filmé kay bu ngeen ñu ngi koy génnee noonu ndeysaan ñu ngi koy génnee noonu ñuy jaajëfalaat bu baax sapeur yi ndax c'est pas évident lii yombul ku xool liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def xam ni yombul ah, gis ngeen ko noonu ñu ngi noonu di ko génnee ndeysaan gis ngeen leen noonu gis ngeen leen noonu ñu ngi koy génne oh c'est très dur gis ngeen ko noonu sapeur sax dañoo sonn ndax fii ban la non non xam nga te te te te nit moom comme ni ñu koy waxee bu génnee àdduna pois bi day yokku waaw mm-hmm. ah, te fi nga xamante ne moom la ñu nekk ban la mooy waral gis nga dañuy yëkkati tuuti teg ah mais it ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def ndax tamit ah, li yombul yombul yombul mais encore une fois ñuy ñaanal ki nga xamante ni moom moo fi jóge rek ah, ah di ñaan tamit ñi nga xamante ne bu fekkee ñoom ñoo jëf jëf ji ah, suñu boroom yàlla na leen teel wane la yoon ba ba ñoom it ñu mën leen xam ndax lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la ndeysaan nii rek la koy defee oh. oh ci nañ ko yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko xala xala juuri kaa leen kaa leen kaa leen kaa leen ñu ngi ñu ngi koy génnee ñu ngi koy génne gis ngeen ñi nga xamante ñoom ñooy xale yi ñoom ñu ngi tàccu sapeur yi ñu ngi tàccu sapeur yi ndax xamoon nañ ni lii yombul woon ah, mujj nañu matale seen seen seen mission mujj nañu matal seen mission waaw ah, ndax yombul dëgg la comme ni ñu ko waxee sànq xam ne ni lii lii lii lii lii fi ñu ko ndeysaan ndeysaan oh c'est très dur gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu teg nañu ko teg nañu ko ñi ngi secourer ñi duggoon di leen euh, tekkil kii gis ngeen ko gis ngeen ko noonu corps bi génn na léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy policiers ak gendarmerie ñoom it dañuy def seen liggéey euh, ba ci ba ci ba ci ba ci autorité bi nga xamante ni moom moo ŋànki maire bi di maireu Padois bi gis nañ ko boppi moom it biñ biñ ñu xamalee euh, xibaar bi ba tey mu ngi fi gis nañu ko gis ne moom moo taxaw ndale euh, def masque bi def masque boy ngir yàlla te yàlla tax di ma leen ñu waaye booy ñun caaxaan gis ngeen ko sapeur yi ñooy ñooy ñooy ñooy sumeeku nii waaw xale yi encouragé leen euh, tàccu leen parce que li yombul fi ñu duggoon euh, risque la woon ndax euh, ban la goo xamante ni diis na loolu moo waraloon bu ñu payé woon sax placard seen koy téye benn 10 secondes à 15. tegaat ko ndax dafa diisoon ak plus seen daal yi nga xamante ni sol nañu ko waaye alhamdulilah ba génnee nañ ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci biir encore une fois dañuy masawu mbokk ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, aji ki ñàkk ndax il se peut ba ba jamono ji sax il se peut xam ci lan la nekk il daf leen tàgg woon liggéey il daf leen tàgg woon seeti mbokk il se peut il se peut daal li yi bari na comme ni ñu ko waxee woon ci suba ak léegi mais gis ngeen leen ñoom ñëpp ñu ngi nii ñoom ñëpp ñu nii taxaw ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw. waaw xala xaar xaar ñuy jéggi gis ngeen ko ba tey ah, ñoom ñu ngi ko wër euh, du ñàkk ñenn ñi dinañu jéem a xool ba xam dinañu xàmmee gi ou du ñàkk ba xam dinañu xool bu baax ki nga xamante ni moom moo tëdd waaye ak lu ci mënti am rek gis ngeen leen ñu nit ñu ngi faire face ak ñoom pour mën a xam réellement lan lan lan moo sabab li ak li ci war a topp yëpp ndax gis nañ fii ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi ah, police gendarmerie ah, police gendarmerie ñëpp ñi nga xamante ni rek ah, concernant nañu ci ah, liggéey bi nga xamante ne war nañu ko amal sapeur yi ñoom it ñu leen di jëfalaat bu baax a baax ndax ah, bi ñu ñëwee ba ba ba des na sigéey fi nga xamante ne moom mooy état des lieux waaw def nañu renfort xool li nga xamante ni doonu koy soxla bu ñu demee tamit jëli nañu lépp ba ñëw dindi ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci biir ndox bi gis nga ni mi ngi noonu ñoom ñu wër mi ngi noonu ñoom ñu wër xamuma nag exactement ba xam dañuy jéem a dañ koy jéem a photographier bien dañ koy jéem a photo ah pour mën a après parce que ñi nga xamante ni ñoom la ñu concerné pour ñu mën a wane kii nga xamante ni moom moo nekkoon fi nga xamante ni moom mooy ci ci ci ci ci canal bi ah lu ci mënti am rek incha allah fii ci kanam tuuti yooyu yëpp dinañu leer ndax tamit bëgg nañu dékk micro ki nga xamante ni moom mooy commandant bi wala bokk ñenn ci sapeurs yi wala ñenn ci policiers yi ñoom it buñ ñu jëmee xamal tey lan moo waraloon lii wala bokk lan la ñu ci mën a jox comme information ñu xam leen leen ko ñeen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp ci suñu différentes plateformes gis ngeen ko noonu waa ji mi ngi noonu ah, ñoom ñu ñoom ñu sekk sapeur yi ñoo ko ñoo ko sekk ah, ah gendarme yi tamit nekk ci ginnaawam di ko di ko di ko di xool gis ngeen ko mu nekk lu lu lu doy waar gis nga ah, ñi dëkk ci alentour yi même ñi nga xamante ne si tax dëkkuñu fi buñ fi rombee ak li ñu gis ni dañuy ñëw taxaw jéem a xool lan moo fi xew ak gis ngeen ko def biñ ko yëgee ci ci ci ci ci ay midi ba jamono ji ah fees na dell fees na dell nit ñi aussi di gën di ñëw nit ñi di gën di ñëw mu nekk daal loo xamante daal lii doo xam sax sax doo xam sax noo koy noo koy noo koy commentaire waaye rek comme li ñuy wax toujours rek dañu koy jaayante. jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko dugalalee ci première image yi nga xamante bi ñu fi yegsee am na fi présentement nag il est 14 heures passé de presque.